di yëngu ci froid automobile ndaw bi di wuyu ci turu Mamadou Gassama nekk ab entrepreneur xam-xamam màccu lool ci wàllu yi ay at yu takku lool la jàngi bile métier ginnaaw la berdaram, daaraam mel nag tax na tey koy ba sax di ci tàggat ay ndaw. bon froid automobile euh, maa ngi ko opté par par passion ci affaire automobile domaine automobile j'étais élève avant maa dem ba classe classe terminale ci la bàyyee école après dougu ci formation ou froid automobile mais pas formation école mais directement à l'atelier en fait maa ko defee face côté ginnaaw permanence su Abdoulaye Wade bi ci sama ki ma forma sama sama formateur mi ngi tudd Abdoul Aziz dian mu nek ben ancien ci froid automobile mom bima fay dem genre aw ma woon notion quand même mais grâce à lui ci a bénéficié formation bataille ma de former yeneen jeunes aussi Voilà, c'est mooy sama parcours. bon maa ngi déjà ci Abdou Aziz depuis 2007 nekk naa en 2007 ba 2016 disons 2007 ba 2016 euh, par la suite ma ubbi fii à partir de 2016 j'ai ma directement à laa installé wu après voilà quoi depuis ñu ngi di liguel pour notre propre compte quoi. bon environ maa ngi am ay 13 jeunes yo xamné ñi ngi évoluer ci sama ci sama ci sama ci sama garage Yo xamné ma leni former di len ñu en quelque sorte aussi ñu nekkaale ay employés en même temps voilà maa ngi ay 13 jeunes yu nekk sous ma tutelle quoi. waaw waaw maa ngi am relation ak ñom par l'intermédiaire d'un de leurs professeurs bu musoon ñëw benn confier ñu benn liggéey moom mi ngi indi woon benn oto boo xam ne amul woon climatisation mu convier ñu ko pour ñu installer ko ko bi ko installer ba pare il a été satisfait ci satisfaction boobu mu proposé ma ne ma dama am ay élèves yoo xam ne damay bëgg ñuy am exercice. ma ne ko amul benn problème booy bu ñu ñëwee mën nañ fi am exercice léegi seen moment vacances yi nga xam ne duñ def cours saa yu paree ak ñoom da leen di envoyé fii. j'ai eu à à eu cinq cinq jeunes yu fi jaar yoo xam ne bénéficier nañ exercice fii ci sama sama atelier quoi. bon en contrepartie bénéficier wu ma ci dara hein. Nous nañ formé après nous euh, dem affaire si engagement man mais j'ai trouvé que ni aussi c'était nécessaire de mon côté ay jeunes yu exercice pourquoi pas Nous yàqalu dara du coup nañ ma ma ma ma ma expérience domaine bi quoi. waaw que sur le papier day xawa day xawa bari différence touti ak réalité wu terrain bi bo indé théorie tout court da ngay xawa a lu bari lima ma lima di suggérer ñom moy nañuy gëna a boy ay euh, exercice dinañ am notion c'est un bon départ bo amé notion di nga di nga am départ bu baax certes parce que détail yu bari bu présenté wo sa kanam di nga di nga ko mëna am ben ben ben ben ben ben gis-gis ci ci ci fonctionnement bi mais il faut que donnions les exercices. parce que je trouve que ni si m'a appréciation dañuy un exercice dafa tout tout. faut faut ñu nous exercices dolli exercice bu faire une formation par exemple loi waay sur papier daf ko que a ci exercice waaw ils en ont besoin soxla nañ exercice bu bari bari ci ma appréciation. wow wow lolo amna au nombre de quatre Yo, xam ne jaar nañ sama loxo ba tey ñu ngi propre compte. am naa ci quatre yoo xam ne ni jaar nañ ci man tey ubbi nañ seen garage nekk di liggéey waaw loolu moom yàlla def na am naa ci quatre personnes. bon maintenant su froid automobile euh, dafa laaj benn benn benn benn régularité maanaam saa yoo paasee tàngaay bi ba saison boobu weesu nga war a duggaat ci saison wu tàngaay encore day laaj nga ñëw par exemple xool filtre yi contrôler niveau gaz yi bu dee gaz bi dafa manqué nga dolli. bu fekkee filtre yi c'est à changer nga changer ko door a dugg ak moom si tàngaay da koy laaj bu laajee raxas yenn parties yi parce que dañu nekk ci benn ci benn ci benn réew boo xam ne dafa poussière te poussière ku ko xam-xam ne ennemi wu climatisation la day wàññi performance su clim day boucher climatisation ba ci radiateur yi da koy fatt par rapport ak refroidissement bi mu war a euh, exercer da koy day day day wàññi dooleem filtre yi aussi poussière bi bu fa stagné benn moment day dem ba da koy fatt day laaj nga changer filtre yi entretien bu clim bu jot bu dara jotul day laaj entretien saa yooyu jàkkaarloog saison chaleur mom day laaj entretien. waaw clim bu am jafé jafé mën na manifester woo ci ñu bari par exemple client bi mën na ñëw na la sama clim bi su ma nekkee Dakar par exemple day performant wala suma suma génné ma hors de Dakar parce que ñep xam nañu Sénégal Dakar température mo gëna tolérant. boo génnee da ngay am ay jafe-jafe mën na nekk clim bu faible boo xam ne mën na dékku température Dakar mais su génnee hors de Dakar du am clim problème yooyu mën na cee manifesté wu mën na manifesté wu aussi ci par exemple mu ne la benn côté bi dina sedd côté chauffeur par exemple dina sedd côté passager du sedd clim da koy def wala mu ne la damay dégg sama clim bi su ma yokkee il faut ma yokk ba mu sës pour ma am performance bi ma soxla mais su ma wàññee volume bi du am li ma bëgg loolu aussi dina koy def mais bari na ay manifestation de panne yo xamné euh yima la wax ni moy souvent clim yi nga soxla yi nga xam ne entretien lay soxla souvent yima la wax ni da koy def euh nala day sedd gauche droite bi du sedd wala il faut ma yok pour am set clim bu normal wala suma ma génnee duma ma am clim bu bu bu bu normal wa genre affaire yoy non da ci manifestal dina yok carburant bi consommation bu fekké ne clim bi performance bi dafa néew

lolou da koy couper mu noppale ko moment bi mu koy couper du consommer énergie su reprendrait commencer waat consommer énergie kon deux temps boobu muy def day économiser déjà mais clim bi su faible du defati deux temps boobu su manqué gaz du atteindre apogée pour mun na noppale ko léegi nag bu atteindre apogéem rek légui yow euh, day consommer en permanence dootul am répit boobu te répit boobu day économiser waaw légui nak clim bu ñàkk performant deug deug deug deug day gëna consommer parce que day gën a solliciter énergie su dee oto moteur bi da koy solicité tout le temps te clim il faut savoir que ni euh, suy fonctionner ak moteur dina am benn pourcentage bu mu yokk sa carburant ci consommation bi quoi. waaw loolu ñi nga xam ne defar nañ euh, oto yi dañu calibrer puissance su compresseur bi nga xam ne moom mooy moteuru clim calibré nañ ko oto bu nekk sëf nañ ko compresseur bi mu attan bu dee moteur bi moteur bu tuuti la souvent compresseur bi. compression bu faible lay demee ci kaw moteur bi loolu mooy waral moteur bu tubaab bi créé créé waale ko ak compresseur bi mu àndal mën na koo dégg. bon jafe-jafe yi ñu ciy am mooy souvent fourniture ah fourniture bi dañuy am ay jafe-jafe par exemple bagage yi mun nga engagé benn affaire par exemple benn oto boo war liggéey démonter bëgg bagage yi des fois du yomb mun na bañ a yomb mën ngay wër bagage boo xam ne da lay të. Euh, jafe fait aussi ci par exemple boo bëggee voyager par exemple pour importer ay pièces c'est pas euh, toujours aussi simple Non, noonu jafe-jafe dañ koy am quoi. aussi qualité qualité bagage qualité parce que boo demulal sa bopp en tant que professionnel parce que si on se dit la vérité c'est que ay commerçants ont ñuy jaay souvent dañuy dem halls, bagage fa mu gën a yombee te xam gars yi souvent euh, prix ça rime avec qualité bu ñu xoolee ñoom bi gën yomb pour marge de bénéfice bu gën ils vont acheter euh, qualité boo xam c'est c'est c'est moindre quoi par rapport ak ñun ligne ñuy bëgg parce que ñoom dañuy calculer une marge de bénéfice dañuy xool bi gën a yomb bi gën yomb mooy qualité bi gën a bi bi bi peut-être bi gën a bon j'ai fait j'ai fait jafe-jafe dañ koy am. waaw il m'est arrivé un moment boo xam ne damay jënd par exemple ay matériel bon matériel bi bu nekkee bees pas te rendre compte parce que c'est à neuf nga montes le client au bout de peut-être temps bo xamné yagul nga gis né matériel bi dafa nek di détérioré ça fait mal quoi ça fait mal parce que par exemple dama lay jëndal euh, matériel bu baisse de qualité soit démé ba rendre compte né au fil du temps matériel bi amul résistance bi nga bëggoon yow ça te fait mal da lay frustré en fait Wa da frustré mais par la suite di nga xam après nga éviter matériel waaw anecdote bobu la am ci peut-être lo xam daf may naqari quoi ci bagage sinon li lay naqari ci client des fois gars yi moom ñu xa xaw a jëflanteeg nit euh, par exemple mu mu mu mu nek par exemple dette bu nek sa diggante ak mom dette bu nek sa diggante ak mom après par la suite van ben, genre mu baña respecter engagement yi ngeen amone bof dalay dalay dalay dalay dalay frustré ba paré day yak diggante nit ñi quoi voilà bon ñun de notre côté on s'organise par exemple Si est engagé souvent liggéey sur rendez-vous On koy def sur rendez-vous euh, on prend le travail le matin jox le heure bi nga xam Il y Il y gens qui sont ngi ñuy qui ont réputation wu respecter suñu timing mais sur le domaine technique il faut savoir que nous aussi des fois mënul avons des am ay surprise lépp solo mooy boo engagé pour faire une affaire yow nekk ci nekk ci bu yàlla defee lépp jàll comme tu le veux souvent da ngay pare à à l'heure prévue mais des fois nga song oto am ay surprise par exemple le travail peut être plus long que prévu loolu suñu dalee dañuy teel dañuy teel a aviser client bi dañ koy woo xamal ko ne fekk nañ ci lii ak lii ak lii du coup heure bi dina évoluer par rapport ak liñ la waxoon dañuy waxtaan di communiquer ak moom voilà bu ci d'accord après on poursuit mais yalla ngi ñuy ñu ngi bañ am jafé jafé ci côté bobu quoi. waaw lolu lolu c'est quelque chose qui peut arriver souvent li koy jur souvent mooy euh, nit mën na fote ci diagnostic am ouvrier bi mën na mën na fote ci diagnostic bi baña def diagnostic boo xam ne genre euh, réellement réellement li ci nek lepp euh na nako ba wax ko client bi su fekkee ne da nga fote ci diagnostic bi souvent mën nga dem ba ci biir lenen feeñ souvent aussi nit ding nga ko diagnostiquer auto entre temps mu jaar fenen day arriver mu tante ci affaire euh, am dégât supplémentaire yow nga bo deful attention trop defat diagnostic comme ni nga défé won li nga li nga fa bàyyi won mën changer mu indil lako nga yow la fa won Nous fa nga am c'est lu la yi wax ni bon selon. selon auto bi lan la panne euh, auto bi bu fekké né entretien tout court la la la soxla filtre à pollen moyennement euh 10000 francs lañ koy jaayé gaz bi moyennement 10000 lañ koy défé mais bu fekké né par exemple dafa am paanu pièce intervention wuñ tolloowuñ pièce yépp yëpp wuñ coût auto yépp aussi wuñu coût pièce dañu gëna a ay pièce ak pièce bi nga paan aussi dafay gën a vis-à-vis auto euh, yi quoi. bon ça dépend su ma par exemple euh, mm, nit ku nek mën na nekk ci benn auto su liggéeyam gaawé pare lu muy def bu yàggul bu paré ci lolu mën na nekkaat ci leneen entretien souvent du yag entretien auto bi bu duggé c'est c'est une histoire de quinze minutes xam nga lolu mën na la taaral fenn mën nga entretenir mën nga entretenir pas mal de voitures mën nga entretenir ay auto yu bare bare bare bare lolu parce que yagul quoi ça te prend juste quinze minutes. Si fekkee ne par exemple ay temps il te faut toute une journée de 9 h à 18 h mën nga ci par exemple euh, trois trois véhicules yoo xam day temps genre dina dina say engagement quoi engagé lu bari mi ngi varier selon rek genre liggéey bi nga bon malheureusement nag état mosuñoo am profit boo xam ne na jusque là mosuñoo am benn soutien wu état. bon pas trop hein, parce que en fait les gars yi di def ay affaire soutien wu affaire kii wu jeunes yi euh, kii wu euh, aide aide aide yi defal jeunes entrepreneurs yi bon ils dañoo dem ba gis na ci biir ñu bëri ay ay nit ay suñu xamee yu ngi gis ngi ci bénéficier wu mais aussi ci ay ci ay affaire wu bras longs aussi quoi bon du coup ça nous a un peu découragé defuñu ci benn démarche franchement après dañu mujjé bàyyi non rek quoi. bon état bi li xaar ci juste ay facilité hein par rapport ak bagages voilà ay ay ay ay ay voyage peut-être pour pour ce qui concerne affaire de bagages accessibilité bi aussi quoi voilà il ñuy défal aussi contrôle contrôle de qualité parce que parce que par exemple tay so sur comme continent européen bi par exemple sañoo fa jaay nit bagage bo xamné ni qualité bi baaxul voilà genre protection yooyu dañ koy bëgg ci ñu ci suñu état quoi ñu ñuy protéger par rapport ak bagage yi dañu dañu dañu dañu dañu contrôler bagage yi muy doon ay bagage de qualité aussi loolu am na solo bon man par rapport ak li ma ci li ma ci gis euh, j'ai vraiment pas regretté le fait que ma jóge école nekk ci li ma nekk nii tey en fait parce que déjà bu dul dara euh, euh, le fait que ngay nekk sa nga am autonomie rek c'est tu es très à l'aise loolu loolu loolu loolu dafa dafa dafa dafa dafa bien aussi bu fekké da nga am passion parce que du ñëpp bëgg pas euh, forme liguey bi nga xamné mom le bureau de fournir am na ñoo xam le terrain liguey terrain Par leen neex par exemple foofu lañuy ñuy épanouir peut-être qu'il lañuy que tu dépenses dépenser sen énergie foofu lañuy gëna gën sen bop bon il faut oser le faire hein. man franchement je le regrette pas du tout si c'était à refaire je ferais la même chose hein yàlla def na on a de de de de très bonnes relations parce que ñi fi nek ñep je les considère comme des petits frères quoi ñu considère ma comme sen grand frère bu ñu même sur le hors du cadre professionnel dañuy échanger ay problèmes personnels dañ ci waxtaan so amé ay conseils nga jox len ko so xolé ñuy jël benn yoon bo xamné ni baaxul et puis euh, tu tu parles avec ñu communiquer quoi ba paré di len responsabiliser aussi par rapport ak liguey bi en fait on a de très bonnes relations alhamdoulillah ouais bon moi déjà déjà rafetlu sen sen sen sen visite bi kontaan ci émission bi bu baakha baakha baax di wax né aussi euh, wax nañ ko ci biir émission bi état bi na gëna soutenir le secteur informel parce que mi ngi absorber ben formation bo xamné déjà day wacc état gratuitement ay boo yo xamné si bo leen di formé duñ la fay bien au contraire yow yaay defaat ci ñom secteur bobu c'est à c'est à soutenir bénéfice su population bi la rek quoi bon je pense que loolu la la la la laay def sama mot de la fin. liggéey bi maa ngi fi commencé mardi 20 mars 2018 laa commencé laa commencé si métier bi ma arrêté école rek enchaîné kii na non fii laa commencé fii la débuté sama carrière waaw liggéey bi doon na liggéey boo xamante ni liggéey bu am solo la waaw moom si duggee léegi moom gis ma si benn regret gis ma si benn rëcc ay avancement rek laa si gis <coughs> waaw suñu relation ak patron bi relation mun naa ne mag a rakk la avant tout ñu jàppee comme ay rakkam di ñu conseillé même en dehors de liggéey bi sax am si ay mbiru àdduna am na si ay affaires yu bari daf ñu siy génnee waaw boobu léegi moom moom lépp loo xamante ne mi ñu koy sant day doon loo xamante ni <coughs> doonul diis daal fi ñun waaw lu ñu jàngal la ba pare ñu jàngal la ba pare léegi bu ñu santee liggéey bi genre kii lay doon rek récital lay doon rek ñu jàngoon commencé ko pratiquer. mën naa ne jafe-jafe yi ñu am maanaam a des fois parfois xam nga nit moom nit matul des fois nga dugg yenn oto yi nii ñu la xoolee ba tudd nga tilim te ni yeeg yooyu noonu waaw dala kii mais à part loolu moom nice moom. man moom personnellement man mosuma fee am problème ak client yaa àdduna moom lépp waxtaan la ci moom buy ñëwee nga koy liggéey ay xool lu mu bëgg. nga defee ko nu mu ko bëggee rek après na yaagul yaagu bu war a tax maanaam ngeen di am problème et tout waaw lu ma regretté mooy loo teelu ma ñëw laa regretté loolu laa regretté tey jii nii amaana bu ma gënoon teel a ñëw dépassé naa fii ah, sant yàlla rek loo gis rek bu ërëm jotee rek. ndaw ñi amee lu ma leen di conseillé am ku si am nañ jàngi ku si ku si jàngiwul rek na jàngi métier toogaay amatul dañoo toll jamono joo xamante ni ku fi ne sa bopp doy na la problème. am du ma ne kenn dimbaleetul kenn mais ku si say problème mu bopp rek doy na la sëkk am ku si ne da nga wut si loo jàpp mun na la dimbali si lu bari. waaw des fois comme yenn yi bees yi nii waaw mun na différence ak bu newoon si oto bi pour montage bi nii des fois dana sonal mais après da ngay négocier ak moom rek ba am li ngay bëgg bu jaree wàññi wàññi bu jaree yokk nga yokk mooy tàggatoo waaw <coughs> di ñaanal ñëpp jàmm rek. waaw di gën a soññi jeunes rek am ku si jàngul rek na wuti ji métier métier mooy loo xamante ni moom moo la mën a dimbali si àdduna bi ndax tey jii maam toog defoo dara baaxul baaxul si jigéen sax asama góor waaw mooy andi yi ngay gis nii si dëkk bi agression yeeg yi ngay gis ni yëpp ñàkk liggéey ko waral te tey jii boo xëyee dem liggéey amaan boo wàccee di nga sonn sonn boo xamante ni guddi gi doo tala naan da ngay génn ba naan da ngay agressé waaw nañ góorgóorlu bu baax rek yàlla baax ginnaaw at yi mu def ci métier fois automobile Mamadou Gassama di sàkku ci gouvernement bi ñu gën leen jàppandal ci seen jumtukaayu liggéey ginnaaw loole amal ab saytu gën leen yombalal aki i le matériel bi ñu importé ci réewu Sénégal